nataal fanweer ak benn benn nit dafa amoon ay àndandoo yu bon yu am doole yoo xam ne ceen sax mënu leen a téye ndax rab yi ko topp dañu amoon doole lool Jésus wax ak rab yooyu ba ñu tàqaliku ak moom waaja daldi wér tàqaliku ak rab yi ba mu fa jóge mu daldi dem nettali li ko Jésus defal rab yeeg seytaane yi dañu ragal Jésus